wa isa salama limaamu bu fekkente ne imaam sëlmal na maanaam wax na assalaamu aleykum te xabla kamaali salaati lu jiitu julli gay mat la ko wax ngir njuumte sabaha bihi man xalfahu ka imam ja jiite na ko wax subhaanallah ngir indim xelam ca njumte la mu juum fa in sadaxahu bu dee imaam ja dëggal na ko ànd ak moom ca la mu ko sabaal di ko yee ca njumte ga mu juum kamala salaatuhu na imaam ja matuli julli ga maanaam day jóg indi la manqué ca julli ga te am yéeney sës ko ca julli ga ñu taqaloo yéene boobu lay am waaye na indi la ca manqué lépp bu paree ca loola mu taaya sëlmal wasajada ba de salaami dal di sujjoot ñaari sujjoot muy sujjooti ginnaaw sëlmal foofu noonu lañu koy defare wa in sàkka fi xabarihi su fekkente nag ilimaan ja ma ngay sikki sàkk ca subhaanallaahi jañ ko wax ndax kako koy wax lam koy wax dëgg lam diit wala lam koy wax mbirum yokk la mbirum wàññi maanaam imaam jaa ngay sikki sàkk lu xew su boobaa li ñuy nekk nekk ci biir julli gi saala àdd lay ni imaam ja sañ laaj ca ñamu jiite ñaar ñu mbaandu wax leen wolof ne leen lu xew ci julli gi su boobaa yow mi jàng sa diine na nga xam ne wa jaasa lahumaal kalaamu dana dagan ca ñoom ñu wax waxe wolof leeral li xew ci julli gi fi saalika ca loolee buñ ko tonto ba wax ko la xew ci julli wax ko fañ tolloog la ca des imaam ji digg su boobaa nag wa in tayaqanal kamaala bu imaam ja jàppee cim xelam ak wóoram ne julli gi mat na amila àla yaqinihi na jëfe ak wóoloom maanaam la ko doy na ko jëf watarakata mu bàyyi alhadlayni la ñaari nit ñooñee ñu jàppe ñaar ñu maandu dañu seede mu bàyyi loolee ñu wax te jëfe la ko moom imaam ci ludul ci ludul illa an yaksura naasu xalfahu nit ña jiite topp ca ginnaawam dañoo bari lool te ñoom ñépp ñoo bokki wax lañu wax fa tolluwaaye julli gane ñoom ñépp ñoo ca ànd te bari nañu su boobaa nag moom imaam fal yatruku na bàyyi yaqiinahu la mu wóolu te jàpp ko cim xelam wa yarji'u mu daldi dellu ilayhim ànd ca la mbooloo ma wax ñu jëfe la nga xam ne mooy matal julli ga ba mat sëkk suñ paree ñu sujoot baada salaam maanaam bu mbooloo ma mépp ne daa manqué na jëfe la mu manqué ko ci julli ga doog wax sëlmal wax asalaamualeykum suñu paree ca loola ñoom ñépp ñu ànd sujootaat ñaari sujoot muy sujooti ginnaaw sëlmal toogaat taayawaat sëlmal julli baax bu dee mbooloo ma mépp dañoo ànd ne ko ëpp na na daldi toog taaya sëlmal ñoom ñépp ñu ànd sujootaat yeneen ñaari sujoot muy ginaaw sëlmal toog taaya sëlmal julli baax intaha bihamdillahi sëriñ abdurahman laxdari yi nee na fii la téere bi yam nee tamit ma ngay sant yàlla mi ko dimbale ba mu mën koo leerale nii ñun ñi leen ko doon jàngal tamit ñoo ngi sant yàlla mi nu dimbali ban man leen koo leerale nii lu ci manqué ci nun la sunu matadi la waaye moom mi bind téere bi léppam mat na yal na ko yàlla fay ki leen ko doon tekkil di seen mbokkam taalibe ñu di ko wax Cheikh Mbacke Njaay jàng ca daaray sëriñ Mabey Géy ca ngàcc kañ ko tegoon ci loxoom mu ne ko baa ba ne ko bàyyil mooy sëriñ Mbacke Géy xalifaab sëriñ Mabey Géy tey kilifaak mboolem seex yi daaru xuddoos yi aju ci sëriñ Moustapha Mohamed sunu sëriñ bu tedd boobu yal nañu ko yàlla fayal yow mi jàng téere bii nag te bëggunoo gàgganti ci sunuk matadi noo ngi lay jox suñu numéro téléphone mooy 76 684 12 04 wala 77 869 58 01 noo ngi leen di ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen yal nañ ko yàlla boole defal tey ak ëllëg wasalaamualeykum